demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xéem bi sëriñ bi ñëwee ci dëkk bi ba am téeméeri at sëriñ Ahmadou Mokhtar gis ne war naa jot ndigal ci kilifaam ngir xool loolu nuñ ko jariñoo ndax téeméer nag ci ati gàddaay yonent bi sallallahu alayhi ñaanoon na ne suñ borom na ko may te bopp téeméeri at bu ne mu may ko koo xam ne day beesal diineem te dëgg la sëriñ bi li war a def lépp def na ko waaye bàyyi na fi ak njaboot gu ko mate goo xam ne kenn ku nekk bi nga ñëwee di dale ci Cheikh dul Moustapha ba ci Cheikh Mountakha mi fi ne yàlla na fi gën a yàgg te ak ni ko sëñ Cheikh Thioro waxee kilifa yëpp seex seek euh, kuréel yeeg ñu ci ne liggéey nañ loo xam ne moo tax yoon wi agsi fii loolu nag moo tax ñu gis ne kon euh, du xaj rek lépp ci bisu màggal gi rek ñu ñu dajale ci lépp kon jaadu na mu am ay bis yu ko jiitu ay waajtaay ay gëstu yoo xam ne mooy tax ci réew mi ak bitim réew mooy tax maanaam euh, ni ñu ci mën a yaatal kamtilayal kattan ñu yaatal ko billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabi al ahyar wa sallim taslima kasir ñu ngi sant sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbàkke te ñaan yàlla yàlla gën koo wéral ci bàyyi ko fi lu yàgg yàgg di ñaan Cheikh Mouhamadou Mokhtar mi nga xam ne moo jiitee Dar Khoudoss ci yàlla def màggal gi ci ba ci centenaire bi moom mu la fi yàlla teg comme ni ma ko waxoon sëñ Mountakha démb ma ne ko ñëpp jaar nañ fi waaye yow la yàlla may chance su centenaire bi mu dajeeg sa xilaafa te eh, suñ borom moom dara du hasard ci moom lu mu def rek am na sabab bu tax loolu am bis bi nag dafa ñor kilifa yi te kilifa gi mu njëkk ñor mooy ki nga xam ne moo jiite yoonu Serigne Touba mu Serigne Mountakha ku gis ni mu réagir ak ni waxe waxee boo amul woon benn euh, kii ci màggal bi sax dana la joxaat benn force ak beneen amour boo xam ne danga ko bëgg def ko ci def ko ci bis bi biñ ko defee nag sëñ Ahmadou Maxtaar moom woon na sëñ Ousmane wan leen njabootu Serigne ñoom bis ñoom moom bis bii kon wool ñépp ngeen constituer benn comité d'organisation sëñ Ousmane woo ñu war woo ñëpp ñëpp itam am ci benn engouement bu rëy rëy rëy xam naa ñun ñi rek ñoo ñëw ni wande biñ njëkkee réunion kër sëñ Mour Moustapha gi kër gi kenn xaju fa ñëpp a ñëwoon léegi nag ci lañ dox di seet kilifa yi ñi nga xam ne njabootu sëriñ Touba lañ ñu xam lépp waaye yéen comme ni ko nit ñi waxee rek jubtuwa jubtukaayu sëriñ Tuubaa ngeen te ñëpp xam nañ loolu nangu nañ nangul lañ leen ko tam ndax lépp lu jëm sëriñ Tuubaa gis nañ seen taxawaay comme ni ko sëñ Ousmane waxee ñun dañ naa naan bis baa ngi noonu lu lu ngeen ci euh, xalaat ne waa xisbu tarxiya lii lañ ci bëgg a def lii lañ ci bëgg a féete ñun loolu bàyyi nañ leen loolu nga wax sëñ Youssou daal ne ko waa kër sëñ Touba ñëwoon nañ ci ci ndégalu sëñ Mountakha Mbacké ci ndégalu sëñ sëñ Ahmadul Maxtaar yëgal seen bis bi bëgg ci ànd ak yéen def ba nga xam ne Sénégal gépp ak àdduna bépp dañ xam ne euh, màggalu Daaru Xudoos gi daa am tey jii exception la ndax centenaire sëriñ Touba la te nag sëñ bi jógee liggéey bi mu liggéey ba ñibbi si Touba ci xam loolu rek moo mas a nekk euh, ak bëgg-bëggam dëkk bi li mu màgge woon ak ni mu ko bëgg ak li ko fi yàlla may mu yàlla xaj ko mënta nekk ci dëkk bi ba yàlla def mu ñibbi si fii te ñibbi si Sëriñ kat mooy liggéey bu mat ba yàlla gërëm ko ca dëkk bi bu matee ak lu am sëñ Touba la ko liggéey ñun ñoo ci gën a jariñ ñun taalibi sëriñ Touba kon nag bu demee ba war def un résumé entre de son rappel jusqu'à aujourd'hui kuy murit rek am nga part de responsabilité pour nga participer ci te yéen kenn waru leen ci jiitu kenn waru leen ci raw ndax boo taxawoon ci àdduna liñ naan boo joxoon ne euh, joxoonam lettre nag sëriñ bu mag ñoo ni ko Touba waaye nag yéen itam bu doon seet taalibu sëriñ Touba ku yam ci yéen ne mi ngi nii kon nag euh, jëlaat nañ daal comme li sëñ Ousmane wax yene set point yi seigne Bassirou Niane énuméré légui ak programme bi ngeen xol yeen la nga xamne moy seen capacité moy seen ndax tam am ngeen yeneen yu bari yu ngeen wara def kon yene xor rek ba nga xamne li ak li man na am ngeen wo seigne Ousmane mu woonu ñu ñew la ngeen ci nara def lepp ñu xam ko di leen gërëm bu baax nak yaakaar naa loolu rek mooy réseau bi Dakar lañ koy defee tan nañ loo danañ fa dem pour def ay conférence tànn nañ Diourbel ndax symbole tam Diourbel ndax Sëñ Tuubaa résidence surveillée pendant 15 ans yooyu Diourbel la ko defee woon bu màggal gi passé nag ñu def benn synthèse ki conférence yi li def yëpp ak waxtaan ak màggal gi yëpp nag buñ paree nag ñu ku ko dans un livre wala benn journal magazine intervention yeeg ñi ci def ak yëpp ak li ci def yëpp ñu ñu kii ko fexe ba mu tasaaroo nag ci àdduna bépp nag kon loolu war naa nekk ci xam-xam ba nga xam ne du ñun mais am na ñeneen ñoo xam ni mën nañoo taxaw liir ci xam Sëriñ Tuubaa gën caa gëstu Serigne Touba loolu daal mooy mooy mooy mooy objectif bi bii itam xaj na dañ ko atteindre te mooy mu am réussite ak résultat boo xam ni da nekk un résultat un résultat extraordinaire ñu ngi leen di gërëm encore une fois ci turu Serigne Ahmadou Makhtar waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa di nuyu bu baax a baax di sant bu baax a baax tamit ci teewaay bi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñaan kilifa gi tamit Cheikh Amadou Mokhtar moom rek mu yàgg fi loolu ànd ak wér yàgg na jox ndigal ñu koy jëfee di bëgg loolu ci teewaay fii ndax ni ngeen ko waxee rek ñun de alalu Sëñ Tuubaa lañ jàppee suñu bopp matériel Sëñ Tuubaa lañ jàppee suñu bopp kon lu mel ni su ñëwee danga xam ne kenn guruñ ci am wàll sab yàlla sëñ Yuusu da si teewut waaye jox nañu digal ci ñu xam ne naka jekk nam ko daa defee si lu mel ni teewee noonu danga la koy defee nu mu gën a rafetee fépp fu kàttan toll daal man man toll fa bu soobee yàlla dañ ko ànd ak yéen ci anam yëpp nag ci anam yëpp jërë ngeen jëf wasalla lilxaq wa ma laysa yabin min alxaq almubin lii xaada ma baana wa ma laysa yabin damam nga umpu na mindeef te um na bopp kuy mindeef kudul malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ñamu ko wax yonen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo xamee su demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom تنک بر سکن خیم